sa onda bu rouge bi tamit xoos xoos si nekk bëri na de doo ko peinturaat onda bi ah oh, ngeen dog ne léegi gars yi bon <coughs> loolu benn parenthèse la woon rek euh, génne nañ effet de l'air man à ma grande surprise ma tam tam ñu jëm ci biir Paname hii li ma kasoon denc assur naa génne ndekete gars yi Gambie lañ doon dem Gambie <laughs> effet de l'air bi Gambie lañ doon dem Gambie ah dem ba aéroport nag yóbbaale réalisateur bi di dugg Gambie yéen war ngeen rus sax yox Sénégalais yi effet de l'air nit ñëpp di xaar foofu leen jëm dégg te Gambie ngeen jëm Gambie ah. daba nag sol nag ak casquette bi nag sol xoolal tubéy bu orange bi nag pour fës t-shirt bu orange bi daba daba loolu du solu aéroport aram tamit yow Gambie bi nga jëm di sol ay pull ay ngandum pull mel ni ku jëm Gambie nga jëm saay slow down slow down Gambie Gambie nga jëm di sol effet de ngeen wax Gambie merci beaucoup merci beaucoup merci. merci bébé yaa ngi dégg ndege ne Gàmbi lañ jëm Gàmbi lu si jar ay sol ay pull ba pare nag tey nag laa xam parce que parce que gars yi nañ seen vol léegi léegi oh. raté nañ vol bi donc biir aéroport parce que xam nga fii moom Sénégal la raté nañ vol bi aéroport mais Gambie la billet bi seerul soixante quinze mille la mën nañ ko mën a jëndaat nag wax dëgg yàlla ngeen dem waaw bu nekkoon beneen dëgg day metti mais billet bi da ngeen xaar vol bi si topp ngeen jëndaat bi d' avion soixante quinze mille loolu bëriwul ngeen dem comprendre nga ngi xaar nag kii bi maa ngi xaar effet de l'air bi bu effet de l'air bi génnee wax naa la nga génne ma samay valise ok boo si kanam tuuti maa xool ba xam damay dem tey si nawet bi Paris wala suba incha allah rabi bu fekkee egg nañ Gambie laa ba installé la lendemain naa takk sama bagage dem dem Paris ah wala ma dem Italie mun naa dem Suisse Belgique tu vois wala Nice ça dépend si envie bi may am rek quoi yaa ngi dégg. donc on est bon gars yi du ci yàgg ah. donc ci kanam tuuti ñu suivre. suite logique bi xol buñu ñu gambi peut-être voilà fan la ñuy tourner Sénégambia ah, wala <laughs> Séné Sénégambia ah, wala xaw fan lañuy tourner ci kanam duudi ah da ngeen bay insister bo leen doulé suma ma leen waxee duul leen ngeen rangé sen bagage yi aja si kanam donc bo leen demee eggee gambi ngeen def mi signe wala ngeen poster ben affaire ah, sinon peut-être tay ci ngol wala suba suba may xol ni soit Air France wala Air Sénégal ban moo gën a disponible pour taytu nawet wala demee après am ah ñu dugg ñu dugg Pana mënoon ngeen dem Dubaay nag sama gars yi quoi moo gënoon jekk si affaire bi tu vois. ma ne leen ngeen am xaalis Cameroun yi ngeen duul ma ne ok coow jiwul méttiwul xam ah ñaata at ngeen am ngeen yéen a ma mag ma ni ba tey coow jiwul loolu méttiwul. effet de l'air Sénégal yëpp di xaar foo leen jëm ngeen bëgg a dem Gambie sama gars si kanam waaye. maa ngi naan tee bi su ma paree en attendant ñoom ñuy génn ñu déggoo ay eh, ciao mbay mbay dama nga toog <laughs>